Papa Alé déjà un mois la comme RTS un mois un mois la fait comme. RTS. Pape papa est-ce que a un problème avec RTS est-ce que a un déficit budgétaire pour Pape Alé avec RTS un milliard et quelque la de RTS. 200 ou 300. 1 milliard et quelques, la fait qui déficit budget, budgétaire. RTS. Nous avons fait que RTS mourit RTS boudé. Quel est un autre coup Quel ne peut que tout coup Nous avons sanni. Nous avons fait que nous avons une augmentation de salaire exorbitante.

mars bu ñu daanoo diggante boobu lu ñu fi signé ci contrat yu dëgër yu ficelé ba mu taxaw yokkal ko gars yi am na ñoo xam ni prime cent cinquante mille lañ doon jot yenn journaliste xam nga ñaat lañ leen jox sept cent mille prime sept cent mille ma ne ko grand bi lii mënuñu ko sax mën ne ma non ci contrat bi ni ñu ko defee mënu sinon bureau du travail nga di mujjee wala tribunal du travail mu fekk fa des centaines de journalistes animateurs yoo xam ni gëj nañ liggéey ci jamonoy Blaise Diagne xamuñu sax fu RTS féete ñoo xam ni gëj nañ RTS toog muy dox RTS la fekk baax bu ñuy créer RTS bu ñuy créer toog muy dox ci RTS lañ ko créer am na ñoo xam ne xamuñu buntu RTS ñi ngi fayee ko salaire ñii ñi ngi naan dañoo nekk frigo ñi ngi fayee ko salaire masse bi egg na milliards et quelque te ñu fay liggéey matuñu laa wax xaaj xaajaat bi matuñu ko kenn du dem du am na ñoo xam mus ñu surtout les anciens les anciens ba léegi ñuy fayeeku ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen mu fekk ko fa gaa yoo xam ne xamatuñ buntu RTS billaahi ñi ngi fayeeku ñii naan ñu xoolal dañu leen dugal au frigo ñi ngi fayeeku li am RTS amul fen manam papa Alé dañ ko jox lo xamni dafa dé dañ ko ray sénégalais amutul amour RTS du ko seetaan bugg ko intéressé wu ko ñu duggal fa seeni jabar duggal fa seeni tom, duggal lepp déggoo ma 1 la un milliard et quelques déficit budgétaire ba paré yok ñi ñu amone 150000 sax prime 700000 lañuy lañuy laal ma ne ko mais grand lii est-ce que munoo ko mun a ma mais moom amul possibilité munu ko arrêté sinon même bu ko arrêté woon tribunal du travail la ñu mujje parce que gars yi bu ñu fiy jógee yàq nañ def ay contrat yu dëgër këcc bien ficelé xam nañ nu ñuy nu ñuy wiiri wiire buñ ci waxtaanee ba pare lépp lépp lépp lépp man ak moom on a discuté presque dina heure de ci projet yu muy waajal nan la war a liggéey même am na ñoo xam ne Pape Pape il vient à la RTS à 7 h du matin 23 h la fay génn tous les jours tous les jours am na ñoo xam ne bu mu fa toogee ba léegi mosuñu fa ñëw te ñu ngi fayeeku weer bii fayeeku nañ 7 h du matin lay dugg RTS 23 h la fay génn Pape Alé lundi tous les jours laa tous les jours boo demee da nga ko fay fekk am na ñoo xam ne bu Pape Alé Niang ba léegi. musuñu faa teg tànk gëj nañ fa teg tànk jamonoy Ablaye Wade te ñu ngi fayeeku chaque mois ñu ngi fayeeku seen salaire RTS moo raw marché li fa nekk ci doomu aadama yu fay xëyee ñoo raw marché léegi kooku nekk ci liggéey boobu di ko développé di xool nan lay def pour mun a def pointage gars yi di pointé di ñëw à l'heure mu war a nar a affronté benn guerre boo xam ni comme nu ma koy wax ne ko grand ci guerre nga nar dem nag parce que sénégalais tàmm nañ lu yomb yoo xam ni boo fa tegee sa benn système de pointage ñu liggéeyul nga arrêté seen salaire dagg mooy ñëpp guerre commencé na guerre bu tàng jër guerre bu tàng jër dina commencé yooyu nga war ko préparer sénégalais te war ko xam ne yaa ngi fas yéene dem guerre ak yàq kat yi dem guerre ak toog muy dox bi dem guerre ak ñi nga xam ni nanguñu liggéey te dañuy fayee ko seen salaire loolu nag da ko war a yëgal sénégalais yi pour ñu xam ni dina dinañ la diaboliser dinañ la yàqal lu ne dinañ ko jéem a def ay dëmm lañ mais il faut ñu préparer wu daf moom préparer moom préparer wu na Pape Alé Niang ay waxu kesew kese yi daanewu ko waxu kesew kesew yi daanewu ko yàgg na ci combat bi du tey il est blindé bañ na ko boo wax na ko xali may coow lañ ma bindee da ngeen di wax may def comme man mii la comme Sonko la dafa am ñu bindee xali may coow mooy ñoo xam ni boodul wax ñu dund ñoom da ngay wax ci wax lañuy nekkee man ci wax laay nekkee man noonu la Pape Alé Niang mel noonu la keneen mel léegi nag ñu ñu dugg ci débat bi nga ñëw fekk benn tele bu ñu yàq bu ñu détruire completement nga bëgg redorer le blason de cette télé là nga bëgg a redonner la télé son lustre euh, d'autant Légui, ngay xol lan ngay mëna def pour gars yi bëggaat télé bi am ñu taxaw fee non affaire bi patriote la non affaire bi non parti bi la quoi non affaire war ñu indi wal Seck yow war ñu indi madame Ba Seck madame Ba Seck yow war ñu indi. xam nga ne mo moom télé bi télé bi xeexoo pour jël ko accaparer ko. sa papa moomu ko sa yaay moomu ko télé Sénégal la du télé Pastef du télé Pastef quoi ñun xeexuñu pour télé Pastef xeexuñu pour di leen fa gis yéen rek ngeen fay yeewu di fa ne bu boo boo leen jëlaatee télé bi toogaat fa dañuy xeex ngeen jóge fa pour yéen ñun dañoo xeex pour yéen ngeen toog ci télé bi di mu oh non patriote la patriote dañ dañ koy buub sànni ca xat bu fekkee ñun dañoo xeex pour patriote di toog fa di ah, télé patriote ah, sama télé maam oh. xeexuñu pour yéen yéen yéen bu ñu leen bàyyi ngeen moom lépp di poste yi jox leen yéen ngeen bëgg ñëw toog at suñu télé yi quoi ngeen ne télé yéen lañ fa war a yàq <laughs> waaw jox ko ma jox ko ma penda sak ñàkk jom nag jox leen ko ma penda sak mu toog non ma dem ba soog moom liggéey na ko non kii kii ko patriote la nga fa toog toogu fa bu fekkee ñu dañoo xeex pour yéen ngeen ngeen toog ci biir njaax ba njàll ngeen yéen a ñu moom yéen ñun dañ ko xeex pour nation bi xeexuñu ko pour parti c'est une télé de la patrie c'est pas une télé de de votre parti politique là

ñuy wax fi yépp dañuy fekk Wally Seck fi hein ah. Sénégal ñuy bëri Wally Wally Seck ay kat Wally Seck lañ ay kat Wally Seck lañ wala ñu top gel ñu top ay Wally Seck lañ buñ démé seen kër gel yi Wally lañ leen di tagal duñ la koy dindil Wally Seck bi buñ démé seen kër jabar yi ñu nokku leen ay Wally Seck ba ñu mandi ñu bëgg ñu ñëw di ñu bandi band lu fi ci internet yo non wala Seck oh, dul merde fessé sa jabar Wally Seck lay déglu say doom Wally Seck lañuy ñuy sa caga ji ngay dem suba ngoon Wally Seck lay déglu sa gal bi Wally Seck lay déglu fece fece fece hypocrite soof ba de moo daq 15 Wally Seck fii bu ñëwee ak ko ñoo hypocrite nag Wally Seck luy ambassadeur ah Wally Seck moom mooy mooy artiste bi mooy artiste jeunesse bi ñoom ñeen ñëpp ko bëgg di ko déglu seen gal yi di ko déglu seen caga ji di ko déglu seen jabar yi di ko déglu et après qu'est-ce qu'on peut faire faire dans lan lañ ci mun ñun seen caga yi bëggee Wally Seck <laughs> gars yi buñ bu wootee mu fees dell bu seen gal yi bëggee Wally Seck mais Wally Seck la ñuy jël def ko ambassadeur lan mooy ambassadeur mooy le représentant de quelque chose ci biti Wally Seck li concert yi muy def ci biti mais yow mais yow waaw Pape Alé sax dafa nax Wally Seck lan la Wally de gagner pour Pape Alé def ko ambassadeur Pape Alé moo moo exploiter Wally Seck yaa ko def ambassadeur muy promouvoir ce produit Wa, waa Pape Alé waay Y'a sama ambassadeur Wally Seck ah waaw muy am xoolal boo defati concert tegal RTS ci ginnaaw dégg nga tegal tegal plateau bi ci ginaaw dóoral ma RTS fofu waale <laughs> ma nax ko man maa nax waale Pape Alé moo nax waale Seck bu mu doon waale dama ne ko non non du ma ambassadeur man njëriñ la ma amal doo ma mun a mais ambassadeur que mooy nga représenté kooku produit boobu tu es le tu es le produit de cet ambassadeur. tu es le tu es de ce produit veut dire que yow yaay promouvoir produit bi bitim réew waxuñu Sénégal de bitim réew ambassadeur bitim réew a tax ñuy wax ci yeneen dëkk yi. ambassadeur kenn du toog sa dëkk de ambassadeur ci bitim réew Waly Seck ambassadeur RTS mooy Waly Seck bu demee bay wax def waxu def dara dina jël ay ay tableau RTS teg fa wala dina wax ci RTS wala dina day promouvoir RTS mais loolu mooy ambassadeur Pape Alé moo exploité Waly Seck moo ko exploité et puis ale teguñu ko fa pour ay régler ay compte ay ay règlement de compte ab produit bu dee RTS produit bu dee Wally Seck di def ay tournéem te xaarul RTS mu ne ko gars yi ma def la ambassadeur au moins sama produit bii nii nga nga dundal ko booy def dara nga tegal ma ko fa nga nanga ma am ñoo xam tekkiwuñu dara su même seen biir kër amuñu opinion ci net bi la ñuy wutee opinion quoi <laughs> am na ñoo xam ne fii ñi ngi fi toog billaahi duñu wax seen kër yi ñu ñu ñu déglu leen seen duñu wax ba seen papa yi déglu leen du seen wax ba seen yaay yi seen jabar yi respecté wuñu leen mais xam nga fan la ñu wutee fan la ñu wutee ku leen déglu ci ci réseaux sociaux yi ci réseaux sociaux yi daal la ñuy profité ah non mais sa waay li nga wax ne dama la wax seen kër sa sa jabar bañ la déglu ne lu fessee sa yaay ne la fessee sa papa wax booy ubbi sa gémma la fessee moo tax nga yab ñu ñëw ci internet bi di ko fi yàbbi demal sa kër ba dugal ko fa ba pare bañ nangul la ko nga doog ñoo ñëw ñun bu ñu fontoo quoi bu ñu fontoo moom moo ñu juróo ñu sa ginaar ne nuñu sa wax bu amul amul valeur sax seen biir kër amul valeur seen buntu kër du ñun nga koy forcer ay bagum jëmm lañ moo moo ñu quoi yow munoo wax a wax a wax ba duñ def luñ bëgg a def munoo daya daya ba duñ def luñ bëgg a def laabu laabu ba duñ def luñ bëgg def produit lañ jox Pape Alé Niang ma xool produit boobu nan la mën a def ak kan la yan la ko loxo la ko mën a teg pour mu mun ko yeggalal fu mu bëgg waaw boo buggee sa produit yegg euh, Italie mais doo ko jox cag-cag doo ko jox cag boo bëggee yore sa bépp produit bëgg mu yegg Italie da koy jox cag-cag doo ko jox cag-cag du ko yóbbu GP nga koy jox GP nga koy jox mu yóbbul la ko produit bi kon GP bi du cag-cag bi boo bëggee sa produit nekk ci local nga jox ko cag-cag et alors da di def nit directeur bu ko orienté bu ko forcé mel ni ku ko jur naan noonu ni ngay defee ni ngay doxalee yow kii fecce fecce quoi à la fin yow yow yaa kan yow cee kii yow yaa ñu moom yow yow fecce quoi yow yow duul quoi que mooy directeur bi doo doo directeur bi kii mooy directeur sa papa du directeur bi kii mooy directeur sa yaay du directeur bi du yow yaa koy organiser fu war jaar ak lu mu def moo xool produit am fu mu ko bëgg a yeggal mu xool ci yan créneau la koy jaarale pour mu yegg foofu oui t'es qui toi t'es qui ambassadeur boo xam fayoo ko dara yaa ambassadeur nax ko yaa ambassadeur kii mu ne waaw jëlal sama produit bi yóbbul ma ko Europe jëlal boo demetee Europe yóbbul ma sama produit boo demee Amérique sa tournée yóbbul ma sama produit ba cag-cag boo xam ni waa ji di la defaral di la defaral GP gratuitement di la yóbbul sa produit yow nga xool nan nga mun a defee ñu jox la sant la dara nga xool nan nga mën a defee pour yeggee ko mais bërki démb bii Sadio Mané <laughs> mujjul bërki démb gisu leen ko ak Sonko Sadio Mané lan la Sadio Mané def ci xeex bi kon da ngeen di saaka Sadio Mané quoi mais Sadio Mané ci xeex bi dafa ci dara musu cee yëy mu cee yàbbi bu ñu rey Casa Sey musu cee wax bu Macky Sall di arrêté bato bi pour mu yóbbu cee wax bu muy embargo bu Macky Sall di embargo euh, Casa Sey su cee wax alors mais bu mu desee lu pour li nga xam ne mun na ko amalal njëriñ Sonko Sonko da ko jël da ko recevoir Air France la ko jox pour mu doon ambassadeur Air France ne ko jëlal ma Air France nga yobul ma sa équipe bi bourge bobu noonu nga dafal mako ci <laughs> Air France bobu Air Sénégal du moins ça safurla Air Sénégal mais sunko daf nako ko jëloo ma jëlal Air Sénégal bi nga xamni mi ngi dee nga yobul mako dafal mako ci sa équipe bi nga promouvoiral mako ay alors <laughs> al est-ce que mus wax ci xex bi waale lañu ñu yëpp quoi ak seen dañoo góor jigéen sax man pour man gor bu yaw ni ay wali sek ma dem ba sekk xawma lan wali sek ma penda yow way kii moko da dakar man man man man gentleman la man intéressé wuma bu man motax ma ma genn na len page bi momu mako parce que man gor yalla bu melni man mola morgan Gaayen ma am len lu wara wax yaw suba tabaski yaw na ay waa waali sekk ma wali sek gor jigéen ñi ñooy wax yoy gor jigéen ñi ñoo nekk ci ay wali sek ma ma penda sek ma ma xadi sek ak ñoo ma ma xuri man xaar koolaa dëggu rab bu dëgër bi wow bi et puis lan laa mën ci benn gel boo xam dama ko nopp muy muy quinze Wally Seck lu ma ci mën lan laa ci mën quoi man man bu dem man la kese man sama sama sama sama sama gel wala sama jabar du déglu mbalax ah parce que man du ma déglu mbalax du ma quinze mbalax man xaar koo bu tàng jër bi laay déglu bu wow ka kën ka kën ka kak muy kii nga yëngal man man buma sañ man sama bëgg-bëgg man moy man sama gel bu may génneel ma xaat ko bu tang jër gitu. mais munu ma ci dara té taxul ma ñëw fekk gel bi di dégg mbalax ma daw ko han déedéet bëgg kay fekk muy walé teg seen affaire yo eh, eh, eh. mais man intéressé man man dama ko nopp et après rien à foutre rien à foutre gor rédé defee iya, bu góor quoi yow ñak fayda amul looy wax waale ma ambassadeur way duul duul nit kenn lu ko jiite du ko fa xastal RTS dañ koo jox par Alé Niang magum jëmm la kilifa la moo xam produit buñ ko jox fan la koy jëme ak lan mooy objectif am ñun ñu ngi ci ginnaawam amul lan luñ ci wax jàmbaar fàq tëdd balaa maa dee nag ñoom ñu bëgg doon suñu seytaane ko balaa maa dee noonu nañ ko jox mola noonu nañ ko jox kilo yow kilo moo ne ñu jox ko ko mola moo ne ñu jox ko ko no gars yi des fois dañu dañoo seytaane ba ñun sax dañuy ciy dugal nit dof moo la ne ñu jox ko yow yaa fekk nit dof nu mu wax ak Pape Alé est-ce que nit dof dina la raconter nu mu gis nit dof gis na Pape Alé est-ce wax na la ko waxtaan naa ak moom man maa ngi wax ak Pape Alé est-ce wax naa la ko est-ce que est-ce am compte yu ma lay rendre yow balaa maa dee nag ngeen ngeen bëgg def ay ngeen bëgg ñu use quoi non Mollah dina ko nga jox ma ambassadeur nga ne ko jox Mollah <laughs> bëgguma ku leen da bëgg naa ko ku leen da maa wër ah bu ñu fontoo maa ngi fi mais mënu ma doon ambassadeur bi dóoruma concert bu am 1000 personnes et après bu ma ko joxoon ma xam ni lii du sama yëg du sama liggéey artiste laa comme Wally Seck mais bu ma ko joxoon du ma ko jël parce que mënu ma dóor concert bu bu ma ne woon ma jox ko ma bu ma Pape Alé woon ma moo naa ma jox ko ko wala ma jox ko <laughs> ma penda sec dama jox ko ma penda ma penda au moins dina am ay sénégalais fa dajaloo <laughs> man man Pape Alé man mënu dajale sax 500 fii nii mënu ma dajale 500 ma penda bu ñëwee dina dajale fii 500 waale bu ñëwee dina dajale ni 10 000 Sidi Diop bu ñëwee dina dajale 4000 wala 3000 jox leen ko mais man ambassadeur Sénégal laa soxla wu ma ku ma koy wax. damay représenter Sénégal di téwal Sénégal fuma toll. et après bala ma day ngeen di utiliser ay tour yo xam ñom sant ñu leen ko non jox ko ni dof ni dof mo la wax ne ñu jox ko ko ëpp ko dakk wax. est-ce que gis ngeen ni dof na non lu ngeen dof c'est pas normal nañ mako ko jox balaa ngaa xeexal da ngay xam nit ki xam lu mu bëgg tamit ko wa gaay gaay bay leen di xeexal lo xamni ñun sant ñu leen ko tamit. vraiment santuñu leen ko li ngeen ñuy waxal ni santuñu leen ko nit toog bi ngeen koy waxal santu leen ko man mi ngeen koy waxal santuma leen ko waali keneen ak santu leen ko ndax xamu leen lu ñu mën ak lu ñu mënul man ab directeur bu ñu fal directeur bees tàq woo na ma fi wax naa ko waxati ko barke alxuraan ne ma moo laa ñëwal nga jàppale ma ci liggéey bi <laughs> ma ne ko saa la nga liggéey koo nga xamuma ko mu ne ma ma ne ko si que ma fekkoon foofu may yeewu fa toog fa mais te pourtant sama gaayen la bu ma neexoon ma dem fa mu formé ma wala nangam mais dama ne ko liggéey bii su sama liggéey xamuma ko te it je me sens pas à ci liggéey boobu te pourtant directeur la bu ma neexoon ñëw Sénégal mu daggal ma benn salaire huit cent mille ma toog fa di <laughs> yeewu di jóg mais du sama domaine de compétence maîtriser wu ma ko xawuma ko ku nekk xam nga li nga mën ak fi nga toll lan kan moo gën a war a mën a nekk ambassadeur honorifique bu RTS ku dul ku dul Waly Seck ambassadeur di teewal culture sénégalaise bi bitim réew di fa yóbbaale RTS kan la bu dul Waly Seck kan la léegi wax leen ma nit dof day def ay tournée ci mondial fii nii dafa difa am ay dix mille personnes cent mille personnes comme Waly Seck boo ko joxoon nit dof sax mu ne déedéet jox ko Waly Seck boo ko joxoon nit dof danaan déedéet jox ko Waly Seck ku nekk day def lu mu lu def c'est tout mais moom la bu la forcer quoi <laughs> ñaari nit ñett bu ñu nous on est les ambassadeurs du Sénégal ñun ñoo ko jox suñu bopp ñoo les ambassadeurs du Sénégal Sénégal rek la ñuy teewal les hommes qu'il faut à la place qu'il faut ku nekk lu ñu la jox loolu nga loolu nga moomee loolu nga mënee c'est tout léegi nag li <laughs> loolu noonu fa amu ci dërëm bu muy fayeeku et puis Wally Seck c'est un liñ ko jox du politique te bàyyi leen jaxase politique ak ak ak aar politique bi dafa jeex xeex nañ ko jeex na am nañ ndam mënuñu nekk jëlaat pouvoir bi di politique encore di politique rek waaw waa RTS non RTS ñu fa war a toog ci plateau yi même animateur yi dañu war a nekk ay ay patriote quoi non même même même DJ bi patriote la a doon non <laughs> mais yow ça va yow yow moom dictateur daal loo jël daal day fépp daa toog fépp uufu day fépp nga ko non mais ça va tu es un dictateur <laughs> nga daal jël nga bi yow yaa war nekk fépp même ku sax nga ne DJ bi nañ ko jox patriote <laughs> bi koy dugal non nañ ko jox patriote de non animateur bi non na doon patriote quoi non DJ bi na doon patriote non euh, kii bi nag no non journaliste na doon patriote parce que dañoo xeex quoi xam nga ma ma penda moom xeex na patriote lool non dañ ko jox moom DJ <laughs> voilà yéen ngeen bëgg jël réew mi daal séddoo ko quoi séddoo lépp séddoo yëpp ngeen yéen yéenay lekk banaana bi yéenay lekk doom bi yéenay yéenay lekk xob bi yéenay lekk garab gi mais sa waay nag may leen nit ñi tamit quoi xeex ne veut pas dire que nga xeex rek yaa moom lépp.

moom lañ ko sas suñu la ko mooy xool li mu yor fan la ko mën a yeggee bàyyi leen jaxase politique ak dama ne ak ak ak suñu seen seen patrie bi seen suñu patri ak seen parti man seen parti mosuma fa dugg nee naa leen ku dugg ci sama patrie di nga ma fa fekk seen dugg leen seen problème mu parti yi du ma ci dugg parce que bokkuma Pastef bërki démb am na ku dem ci benn meeting gars yi wàcce ko débat ngeen ci yéen ñëpp mosuma ci débat commentaire ngeen ci ba naaw mosuma ci commentaire xam lu tax bokuma ci yeen motax commenté wu ma ci dé bo leen duggé nak ci sama patrie ngeen may fekk nak ma rof leen tangor nak sama patrie man patrie moma ma bokuma patri. seen parti seen problème parti na ngeen ko régler feulé intéressé wu ma musuma dugg ci seen problème parti bu ngeen di def seen affaire benn way ñew tok keneen ki wàcce ko koku mané li affaireu affaire Pastef la musuma cey wax musuma cey yey musuma cee yàbbi musuma ko développer musuma commentaire seen problème la yeen

peuple bi yëpp lañ bëgg ñu retrouver wu ci xeet yëpp lañ bëgg ñu retrouver wu ci moomu leen ko du pour yéen ku leen bàyyi ngeen ëppal bëgg a moom nit yi ngeen pour yéen lépp yéen a ko war a aaki moom waa yéen yéen a ñu moom yéen ñun bokkuñu seen parti et après bokkuñu seen parti et après waa yéen yow wala waale sa xeexul waa moo xam xeexul après loolu loolu du débat bi affaire bi du politique lu nekk ngeen bëgg ko politiquer yéen lu nekk ngeen bëgg ko yàq ngeen yàq xeex bi ndax seen politique bi lépp di ngeen ko yàq parce que bu yàggee ñële noonu sax dañuy am lu ñuy wax ah non xoolal ñi ñi ñoom ñoom pour ñoom ñoom moom lépp ñoom balaa maa dégg ne non xeex bi doo koo xeex yow da ko waaye yow la da ko xeex pour da nga ko xeex wala da ko xeex parce que <laughs> da nga doon wut dara man xeex bi dama koo xeex parce que damaa gis Sonko

pour kuy analyser war na xam ni moo laa lan moo tax ay waxu Pastef du ci dugg man du ma ci dugg bërki démb waa ji dem nuyu ji Antoine ñàkk yom coow la ba mu bëree <laughs> dama ne leen ah kii man joxuma ko ministre joxuma ko maire joxuma ko benn poste de responsabilité donc kii du pour ma kon lii problème mu Pastef la dama leen régler ko fële mais bu doon man la daal <laughs> Antoine mii du ma ko nuyu mais ba léegi ak respect Jibi Gueye Ndiaye waxuma ci dara te pourtant ñëpp a ngi doon xaar ma ne déedéet bu doon Jibi Gueye Ndiaye dama ko jox ministre wala maire wala député wala quoi que ce soit bu boobaa am naa pour wax ci parce que dama ko jox benn poste de responsabilité te ndax kee dama ko joxoon benn poste de responsabilité kee mun naa wax ak moom mooy Antoine ñàkk jom mais Jibi Gueye Ndiaye waa Pastef ñoo ko jox seen benn poste de responsabilité donc waa Pastef ñoo war a wax ak moom ci lu ñu bëgg a wax ak mais respect ma lu may ak moom man noonu laay analyser

<laughs> man bu ñu ma ko joxoon tey wóor na ma sama yaay day nalawi sama yaay day nalawi bu ñu ma ko joxoon ma nekk ci télé bi sama papa day nalaw billaahi <laughs> télé bi du am cinq personnes parce que fa laay nekk di xaat ko yaay dëkk bi daf dafa metti metti la fay tekki dañuy daw mais <laughs> yéen moom ngeen bëgg moo tax ñu ñu tegal leen ko Wally Seck nekk fa man xaw ma sax lu muy woy nag man du ko déglu eh, eh, eh, xaw ma lan nag xaw ma ngay njooro ngay njooro ngay gay saari mata gay ngay njooro ngay njooro di ko wax xaarantu fa <laughs> mais sama yaay day toog di ko déglu sama papa toog ñëpp toog mais man du ma toog donc da ngay xam lu nga moom ak lu la yàlla man da duma ma fa toog naan Salimata Gueye mais salima Salimata Gueye bi ci moo tax Sénégal yëpp ñi ngi ci bir télé bi di saraan Salimata Gueye kon produit bobu pap ale di jaay kay mom jarna na mais pas ce pap ale du du bàyyi ba tabaski ñëpp seen bir yi fess mu ñew def ben concert mo la fofu pourtant amna sound mais kenn duma ma seetaan ñi nek ci télé bi du bari ñëpp ci mbéd mi lañ ne wala ñu dem ci yenen télé dañuy sappé ki kan la rapport ay sappe li bu doon nit dof la dina la waaye kii la rappeur s'appelle li waay mu ne ma kañ kañ ragal du jéggi raay du jéggi du jéggi raay du ta du ta du jéggi gars yi dafa dafa sapel sama gars yi ko seetaan dana sapel maire bi sapel <laughs> mais kay kii jaay produit am kay moo xam fu mu koy jaay ak client yi muy wër nañu waxante dëgg quoi bu la ñu forcé na gars bu la ñu forcé Sénégal la mbalax ngeen di 15 tat ngeen ciy def moom ngeen bëgg moom la seen teel yi bëgg seen jabar yi bëgg bu la ñu fontoo quoi kii day jaay produit am kii day jaay RTS day jaay produit nan lay def pour mu nekk mu jiite bépp télé day jaay produit moom ngeen bëgg. fa ngeen toog mu leen Salimata Gaye Salimata Gaye Gaye Njoro Gaye Njoro Gaye Njoro Gaye Njoro Gaye Njoro Gaye Njoro Gaye Njoro Gaye Njoro Gaye Njoro Gaye Njoro Salimata Gaye Salimata Gaye Gaye Njoro Gaye Njoro Gaye Njoro Gaye Njoro Gaye Njoro yéen a ngi toog di ko 15 mais bu leen ñu fontoo quoi tamit mais bu leen ñu fontoo quoi moom ngeen bëgg moom la seen gel yi bëgg moom la seen yaay yi bëgg moom la seen papa yi bëgg quoi mais bu la ñu fontoo quoi mais la ñu jàmm afia réew mi dañ ko bokk dañoo bëgg noppaliku tuuti moomu leen ñu quoi produit lañ ko dégg pour mu jaay ko mi ngi koy jéem a jaay xool nu ngi koy jaayee ni mu def non la ni mu def mooy loolu noonu la moom ngeen bëgg mu leen koy jox nu ngeen ko bëggee la leen koy joxee <coughs> ñu sonal quoi moom ngeen bëgg yéen ji mbal ay 100 pour cent mbalax maan ngeen yaa la wax mbalax ngeen di 15 yéen xam naa leen mbalax ngeen di 15 moom ngeen bëgg seen gal yi moom lañ bëgg seen yaay moom lañ bëgg moom ngeen di 15 moo nekk seen xol yi wala nga koy seen yaram di daw man du ma déglu mbalax man du ma déglu mbalax <laughs> mais dama barke alxuraan du ma déglu mbalax man man sama nopp mbalax mbalax bu ci tegoo mais Sénégal kan moo mën a rëcc mbalax bi mais mbalax mooy yee yéen ñëpp mbalax a leen di yee Sénégal saa yu may nalaw bu ma yeewoo mbalax ma yee sama kër laa tëdd mindaan bi dóor mbalax bi ba mu sës sama yaay dóor mbalax bi sama yaay bu gaaw a sangeem bu gaaw a sangeem kër mais sama yaay moom la ma doon yee musuma yow te deguma won yoyu ah borom kër bul gaaw sa nge borom kër ah borom kër bul gaaw sa nge mais mer bi me mer jox jox ma som rap jox ma som hip hop maada jox ma som hip hop mais bul nga a sa nge la lay dóor bo yow bon bi tegal la salima dagay salima dagay mais mom mo fi ne ak luñ ko bañ bañ bañ mom ngeen di 15 yéen mom ngeen bëgg moo nekk ci yéen seen deret la nekk da ngeen koy da ngeen koy dund bu la ñuy foto quoi mais Wally Seck bu newul ambassadeur RTS kan moo koy doon ci yéen man man de mënu ma doon ambassadeur mënu maa dajale mille personnes kan ni dof mënul dajale fii mille personnes kan la mille deux mille personnes trois mille personnes <laughs> mais Wally Seck moo ko mën a dajale moom la ñuy def ambassadeur Youssou Ndour moo ko mun a dajale moom la ñuy def ambassadeur parce que waa ji produit bu muy jaay kay da koy jaarale ci ci support bu mu mun a jare <laughs> léegi nag man lu ma mun mooy sama hip hop laa mun a défendre démb woo naa sama grand mu wuy ma on a discuté presque deux heures de temps man a euh, Pape Ale mais grand <laughs> bu ñu fàtte de ma ne looloo la hip hop ma ne Mawla fàtte mais sama laa xam kaasal naa sama bopp démb bu ñu fàtte mu ne ma Mawla du ma leen fàtte hip hop dinaa ko jam ci télé yi dinaa ko fa jam hip hop dinaa leen ko jamal. man sama bopp laa kaasal ah mu ne ma daa leen ko jaman ma ne ko grand may ñu ay émission émission gën na fa am depuis jamonoy Abdou Diouf Ablaye Wade daf ñoo dàqoon ci télé ba Macky Sall daf ñoo dàqoon ci tele bi amuñu voix te ñun saa yu xeex amee ñoo koy xeex grand jàpp ñu ñun tuuti mais mu ne ma dinaa leen defal ay émission moo laa naa leen may émission ci tele bi ba ngeen yëg seen bopp naa leen may deux émission à trois émission jox na ma kàddoom Je mets deux émissions à trois émissions mais man sama la c'est un game sama hip hop la kaasal loolu intéressé ne nañ ko may may nañu bu le 21 juin nous avons woo sénégalais terrain à Capes, Dakar le hip hop à l'honneur le hip hop sénégalais à l'honneur concert gratuit RTS moo ñu ko may sama niggas yi ñëw sama rappeurs yi ñëw gars yi teewal ko on a mic DJ yi ñëw ñëpp gars yi ñu ngi invité bépp rappeur ak képp ku bëgg hip hop Galsen ñëwal le 21 terrain ak Acapes RTS moo ñu ko may à l'honneur le hip hop Galsen à l'honneur foofu foofu <laughs> mais mi ngi amuñu ko ni ngeen fa gis nit doof ñëpp ñëpp rappeur yëpp yëpp yëpp kër gi euh, ñëpp mbaa duñ mbaa doo lañ ñëw foofu encore rek di di di fé di ñu féewale naa wooy non kii kii moom xeexalul kii bi non di jëmeef kii la àndaloon non mu mu la kee la àndaloon hip hop la ñu wax hip hop seen affaire yi góor jigéen yooyu nag bu leen ko dugal ci suñu gain nag le 21 juin fête de la musique RTS moom moo ñu ko may gratuitement bu leen fa ñëw seen ak seen jikko góor jigéen yooyu bëgg ñoo diviser nag dégg hip hop la ñu wax hip hop music game hip hop game la ñëpp ngi ci biir bu leen fa ñëw di féewale noo kii xeexul noo kii xeexul noo kii mooy kii moo dee ci combat bi non kii dama ne ñun politique ñu foofu ñun dañuy rap politique ñu dañuy hip hop rap la def. bu leen fa seen jikko góor jigéen yi ngeen yor yu sew sewaan yi di séddale kii non kii xeexul non kii moo xeex non kii on nañ ko ci sédd ah, non non ñun nekkuñu ci kon ñu ngi invité bépp MC bu xeexak bu neutre bu xeexul ak ñi ngi leen di invité le 21 juin fête de la musique fële nga xam ne moom mooy terrain ak apes ngeen ñëw ñu rëppatal di woo meef di woo DJ yëpp di woo ñëpp waa APR rappeur APR rappeur PDS rappeur LDMPT rappeur AJPADS rappeur hardcore underground Roughneck G-Funk Wimi Roadstar Ego Trip rappeur slow down nooy nemm mainstream ñëpp la ñu woo mbalax rap ñëpp la ñu woo point mouvement bi doo ko doon mouvement am foo leen dugg diviser ko ak seen yëfu góor jigéen yooyu non kii xeexul man balaa naa kii xeexul kii moom xeex non ok nañ ko jox kii non non jox ñëpp lañ ko jox. ñëpp lañ ko jox tout le monde doit se retrouver dans ça tout le monde doit se retrouver dans ça ñun combat boobu lañ nekk Matador ak ñëpp nañ ñëw dañ koy teewal.